voilà salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii ci Sénégal kii di El Hadj Malick Guèye nekk euh, président mouvement euh, Suxali Saloum ànd ak Sénégal di nekk membre benn Bokk Yaakaar euh, nekk conseiller spécial à la présidence de la République El Hadj yaa ngi commencé miin Sénégal ñoo ngi leen jaajëfal di la bàyyi nga nuyoo mbokku internet yi. ñu ngi leen di fay bu baax di nuyu waa Sénégal yëpp. di am mbégte lu rëy nag ci siyaare bi ñu siyaare si tey waaye maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi liggéey Sénégo di am mbégte ci Sénégo bu baax ndax organe la boo xam ne macha allah Sénégal yi sopp nañ ko bëgg nañ ko ndax ci dëgg gi muy dox ak dëgg gi muy wax ak dëgg gi mu fare ak lumière bi nga xam ne porté na ko ci askanu Sénégal. d'accord ngay milité particulièrement fale ci Sine Saloum. Hmm. pour ne pas dire Kaolack. gis nañ ne benn bokk yaakaar ba léegi mënuñoo feex ba juboo chaque jour la xiiroo ak ngaayoo diggante bi tey ak Kaawu Rahma wala sax bi tey ak euh, kii di euh, Mariama Sarr bon feeñul noonu mais Rahma ak Mariama Sarr maanaam responsable yi nga xam ne nekk nañ ci biir Kaolack te nekkal fa benn bokk yaakaar seen ànd taxul la neex noonu euh, ci kanam gi ngeen am ci kii di maire bi nax ngay di dundee loolu yow en tant que responsable boo xam ne ñàkkul ne am nga regard boo xam ne wute na ñoom seen position. waaw ku ko ci def ku nekk ci ñoom rek def nga lu la warul def nga loo xam ne euh, waroo ko def euh, loolu lépp di ko jur rek mooy ñàkk xam politique moo jur lu mel noonu parce que fi ñu béy ko fan la fi ñu toll fan la ak fi ñu jëm fan la buñ xamoon ñetti milieu yooyu ni kon am na yaakaar ne ni kon xuloo du am xeex du am mm-hmm. ndax euh, sorti ci daa tudd ak def ci fon nañ béy ko mooy législative législative kàndaaw parti li ñu seqoon ñëpp ci waroon na ànd juboo ci def ko def mm. nañ ko alhamdulilah mm. bii ñëw kenn rek la muy président rek bon xuloo waru fa am xeex waru fa am xëccoo waru fa am bu fi xuloo amee rek maanaam ñàkk xam moo nekk ci ñoom waaye bu ñu demee ba amoon xam-xam bi nga xam ne moom la nit war a am en tant que am na yaakaar ne ni koon euh, maanaam juyoo boobu nga remarqué sa morom gis ko keneen gis ko ni koon war mën a bañ am Hmm. waaye yaakaar naa ne incha allah jubóo bi dina jeex parce que ñun ñëpp ñoo bokk fi ñu jëm ñoo bokk ki ñu àndal benn situation la tey muy président de la République 2024. Hmm. loolu te ñun ñëpp ñoo ci war a ànd def ko bon am na yaakaar ne jubóo addi waru caa waru caa am. Hmm. bon ñu bokk ndey bokk bàyyi moo ñu war buñ ko defee moo ñu war ñoom buñ ko defee ci loolu ñu war. te loolu am na loolu la war a def parce que euh, discipline du parti kenn ku nekk ci ñun war na ko taxawee. d'accord Kaolack bu nekk bastion électoral bu am doole. Mm. Euh, ban jàpp nga lan nga jàpp ne président war na ko mën a def léegi léegi nii pour ngeen mën a ñëwaat en tout cas ci au devant de la scène parce que xam nañ ne mairie bi nekk Kaolack géré wu leen ko. waaw li waral géré wuñ mairie bi situation bi am rek moo amoon. Mm. situation bi am léegi moo amoon. te local yi. Mm. waaye du sax gën ne affaire fa perdre maanaam benn bokk yaakaar dañoo perdre euh, dañoo ñàkk département bu Kaolack non ñàkkuñ ko benn yoon. ñoo ko moom. waaye ca Olof Njaay dafa xam ne mutuñu dimbul dina tax dimb naqadi mhm. nañu defee woon list ba mooy li nga xam ne moo moom la moom la nit ñi àndutoon maanaam moom la ñenn ñi corrigé woon mhm. euh, ba tax loolu am waaye ka fa nekk maire sax xam ne ne euh, majorité bi benn bokk yaakaar la moom xamal na ko boppam euh, su ne man mun naa am naa placement bu ma ko waxee ndax ci élection locale yooyu ñoom dañ ma beddi woon sànni man ma jël ko moom mi toog tey mhm. indi ko fa ma dëkk oo ko dëkk sëriñ boobu way mu ñëw sama dëkk seet si ma hmm. bi ma seetsee li mu waxal boppam moom daf ne bi mu commencé tourner ci politique ba léegi mbooloo mi mu fekk la ne ne gisagul ko fen hmm. moom xam na loolu xam ni it ne maanaam situation boobu bokk na ci la profité ba fa lu nekk maire waaye xam nga sëriñ boobu sëriñ boobu non non non hmm. élection locale élection législative yi bi nga xam ne président euh, bañ loolu répété waat bim ñu ooyee ñu toog waxtaan ak moom mu ñaan ñu ñu may ko boo seeloo tey commune Kaolack dañoo perte totalement malgré ñoo yoroon bépp teranga bu leen parti bi jox. Mm-hmm. parti bi ñoom rek la jox teranga. Mm-hmm. ñoom rek la jox teranga ay ministres yoo am post am daal bari mi poste euh, yu baax la ñu am lu mel ni xam nga Sénélec fa fala fa doole. Euh, entreprise yem. Mm-hmm. ma ministre fonction publique encore am nga outil politique ah. yooyu yëpp mu am ko boole ko ay opérateur économique yoo xam ne ko demee ni ko mën jaay raxma mhm. nga xam ne macha allah ay marché yu doy waar lañ lay jox mhm. ah yooyu bon mun naa wax ne pour ñoom ñu perte commune Kaolack mhm. kooku warutoon waaye malheureusement ñoom bi ñu perte à commune Kaolack ci mille deux cent vingt voix ci élection législative passée Lat Mingué ñun ñoo ñëw rapporté élection yi ci mille huit cent quarante cinq voix ah bon loolu lu mu signifié mooy euh, ñamu jox jar na laajte ndax ñoom la lu jar laajte la nag lu jar laajte la ndax ñoom la ndax ñooñu la war a jox wala ñaan la war a jox hmm. ah en tout cas loolu lépp di ko jur rek mooy euh, situation politique boo xam ne maanaam xam nga politique moom dafa am yoonu boppam hmm. politique moom da nga ci mën a pratiquer le homme qu'il la place qu'il faut wala nga ñàkk hmm. loolu rek mooy politique amul leneen amul leneen d'accord moom du terrain boo xam ne yaa ma neex la non xam nañ la quand même ñoom ñu ñoom ñu fa nekk di xëccoo wala di xiiroo ak ŋaayoo seen biir Euh, bu ñu jëlee seen seen expérience politique ak yow bi nga yor am na différence bu yaatu. Mm-hmm. léegi yow en tant que ancien ci politique. Mm-hmm. ak xam-xam bi nga ci am. te nga bokk Kaolack président Macky Sall woolu la. Mm-hmm. xëcc la ci wetam. ba taxawaay nga bëgg nga war a taxawee pour que xiiroo ak ngaayo boobu am Kaolack war a mën a dakk yaakaar naa ne nag dakk na yaakaar naa ne dakk na. lu tax ma yaakaar dakk na mooy bi ma président nommé bi ma saalum ooyee di ma sargal. Euh, bi ma béykoo lat ne ngi euh, dama dama génne lat ne ngi dem ci xolu département bi def fa la ma def la ne muy mitin bu mag mhm. bi ma génnee foofu ñëw naa commune Kaolack CDEPS tout le quartiers yi ci Kaolack quarante cinq quartiers yëpp toog yaakaar naa ne it mitin bi passé bi Pape Demba Bitèye mu mujj def mhm. maa moom ma ko def ndax daa fekk Euh, le 19 boobu ci laa waroon def meeting euh, Daaru Rahmati ci Médina Baye Niass mhm. mu ne ma nañ ko boole def ko muy benn ñu joxante loxo ànd maak moom ñu taxawal meeting boobu ci Kaolack mhm. ba ma fa taxawee suma parole mooy maa ngi jox loxo képp koo xam ne yaa ngi jàppale président de la République bokk ci Benno bokku Yaakaar nuyu a Sarr nuyu Modou Ndiaye Rahma nuyu Diène Farba Sarr nuyu ñëpp yaakaar naa ne su nekkee président def na li ko war a def def na li mu war a def ah wala bon jaar nañ fi ñu war a jaar nga xam ne du yaam a neex wala maa fi nekkoon démb wala Samba ak Demba ak Paul yooyu génne nañ ko indi indi li nga xam ne mooy la réalité du terrain am naa yaakaar ne su boobaa coow dafay jeex moom. Mm-hmm. day jeex tàkk parce que président Macky Sall lui-même moo ma nommé woon ci loxoom président fédération département bu Kaolack. Mm-hmm. mu mu génn PDS président war dañoo def ma coordonnateur département bi. Mm-hmm. maag président Macky Sall ñoo bokkoon nekk assemblée nationale encore. Mm-hmm. yaakaar naa ne bon réalité yooyu nga xam ne yàlla def na ne jaar nañ ci ba génn fa ba xëy taxawaat tey jàkkaarloo ak ñoom yaakaar naa ne bu nekkee président def na limu war a def coow moom kenn du ko fas nga def. Mm-hmm. non non ndax doo man doo man man su ma ko waxee ah ñoom buñ ko déggee dañ koy xam man coowul kaw lu li bëri li yëpp ah, dafa fekk président lii mu nommé ma tey conseil spécial bi dëgg la rëy na ci man kontaan naa ci bëgg naa ci su may bokk su may bëgg nañ ci su may militant kontaan nañ ci bëgg nañ ci ndax ñun lu ñu mën a jox lu mu tuuti tuuti tuuti dañ koy réyal parce que am na ñoo xam ne ñu ko toog te amuñu ko. Mm-hmm. deuxième fois ànd ñu ak moom it pour mu fal ñu. non dañoo ànd ak moom pour yaakaar bu ñu am ci moom ngir ngir lan pour ñu mën a relever défi Sénégal wala Sine Saloum. Mm-hmm. rawatina nag mu nekkaat suñu doom encore. te ñun dañoo gëm ne sa doom tudd sa doom ndax lu moom la dañoo gëm ne sa bopp tudd sa bopp sa mbokk la tudd muy doomu Sine Saloum la. Hmm. premier dame nekk doomu Sine Saloum. premier ministre nekk doomu Sine saalum président assemblée nationale nekkoon doomu Sine Saloum bu am bu ñu dajee lii yëpp bu dajee ci moom waru gar na ñun doomu Sine Saloum jël paix ci Sénégal. Hmm. ci lu ko war a jàppale ak lu ko war a fal te am naa yaakaar ne incha allah euh, liñ jëm mi 2024 nu mu ko buggee rek incha allah dañ ci ànd. d' accord tudd nga mu nekk actualité boo xam ne. Hmm. ginnaaw bu ñu génnee élection 2019. Hmm. élection présidentielle yi 2019. Hmm. Euh, Sénégal nekk ci débat boo xam ne dafa mel ni lépp dafa tënk ci mbirum élection. muy mbirum troisième candidature président Macky Sall bi nga xam ne war na ko mën a may. un deuxième mandat de cinq ans. maanaam un deuxième quinquennat mu nekk werante boo xam ne tey occupé na l' espace politique. d' une manière globale parce que waxtaanewuñu leneen lu dul mbirum mandat ci réew mi. yow nga nekk acteur politique bi nga xam ne fekkee nga démb fekkee tey bu ko yàlla dogalee nga fekkee waat ëllëg lii ñëw ginnaaw deux mille vingt quatre est ce que jàpp nga ne président Macky Sall ci dëgg-dëgg ginnaaw ak li mu wax ak li constitution bi maye war na mën a def war na mën a prétendre sax di wut beneen mandat encore. ci xam nga euh, constitution li mu wax mooy ñaari ñaari cinq la wax de wala sept ak cinq la cinq ans ñaari cinq la hmm. wax. Hmm. ñaata cinq la amagum du benn. benn ah? bon desul beneen wala dama la laaj rek bu nekk ñaari cinq la euh, suñu di suñu réew li mu wax maanaam suñu loi wu réew li mu wax mooy ñaari cinq ans waaye président benn cinq ans la amagum bële bokk ci cinq yi bon ñaari cinq moom la wax moom lañ bind ñaari cinq ans yi benn bi pare na mu des benn bi waxuñ benn sept ak benn cinq waxuñ loolu dañuy wax ne ñaari cinq waaye ñun benn cinq lañ amagum léegi mu des beneen cinq bon amul werante ne président de am na droit dem élection bu loolu passé euh, ñun dañ koy dañu ànd ak moom ci dañ koy owit mu ñëw taawal candidature hmm, ndax waxagul waaw hmm. dañ koy owit mu ñëw wax maanaam dañ koy owit mu ñëw leeral ñëpp ne li nga xam ne moom la militant yi bëgg moom ànd na ci ñun ñun dañoo bëgg mu nekk fii Sénégal incha allah rabbil alamin 2024 nekk candidat Sénégal ñu dem gagné ko incha allah tegal ku ci bopp réew mi ndax fi mu jëlee Sénégal ak fi mu indi ku ne xam na ko ku ne xam na ko. mais est-ce que Macky war nañ mën a delloo ci coowal Ablaye Wade bu mu fi andi woon en ok non coow bi nga ko ci dugg ku ko ci dugal yaa ko ci bëgg a dugal rek. wante président moom nekkul ci loolu man mii di wax ak yow man daal président Macky Sall bu ñëwaantoo tey bu sampee ndëndëm ne 2004 man may première personne bi ànd ak moom su ne leneen nit may première personne bi jiitu ci baaro ak ku mën moom nag moom a gënal su ma demee ba nga xam ne nag moom du moom wala moom dafa am beneen candidat bu ko def moom président a la en tout cas ñun bu demee droite ñu dem droite bu demee gauche ñu dem gauche bu sobee ñu taxaw. Hmm. mais yow yaa ngi woon fii 2012. oui doon ànd ak Ablaye Wade. oui gis nañu dëgër bopp bi nga xam ne ngeen baal ma ci wax ji Ablaye Wade dëgëroon na ko ci mbirum troisième candidature. Hmm. fu mu yóbbee woon Sénégal bokkuñu ne kii di troisième di kii deuxième la bokkuñu ay bokkuñu. bokkuñu. abale ah, troisième la. non non bokkuñu <laughs> kii da doon briguer troisième kii ne briguer wul ci deuxième ci première la nekk. cinq parce que yow yaa wootee ñaari cinq mun dama la ko laa laajoon ci ci gannaaw ne la ñaari cinq la ñu wax nga ne ma waaw man la dañuy wax benn sept ak benn cinq wala ñaari cinq nga ne ma ñaari cinq ñaari cinq ñun benn cinq lañ amagu mu des benn muy dem leen kat après dem leen kat na moom amatu droit bi après dem leen kat amatu droit bi. parce que dafay matal ñaari cinq ans en tout cas bu faloo daal 2024. Mhm. ba toog cinq ans ah, bi ñëwoon moom amatul droit bi bii moom am na plein droit pour mu samp ndënd te yoon moo ko may yoon moo ko may cinq la yoon wax te benn cinq la amagu léegi moom waxam luñ ko doyee newoon na fii hmm. man am naa benn su ma amaatee bi mooy jeex bi mooy ci la nekk pare naa benn benn bi mooy bi génn benn bi mooy bu génn ndax it nag wax dëgg yàlla ba muy wax benn am naa benn mooy benn cinq bi parce que ñu ñoo bind ne xaatim ko bind ko suñ ko suñu réew dem référendum ñu woote ko ñu ne ñaari cinq benn cinq la amagu am. ñaari benn boobu moo doon wax septembre bokku ci woon daal. ah xam waaw lu tax lu tax moom septembre waaw bi ñu koy def boobu septembre bi xaaruñ bi mu jeex ñu door ko def déedéet dañoo woote ci diggante bi yow yaa ko woote man maa ko woote Sénégal yi ñoo ko woote. Hmm. ah ne ñaari cinq def na benn cinq mu des benn cinq. d' accord hmm? Ousmane Sonko tamit mu nekk mbir moo xam ne sonal na leen. Hmm. nekk candidat boo xam ne. candidature am dafa mel ni euh, dal na tiital ngeen bëgg jaarale fi ngeen jaarale woon Khalifa Sall ak Karim Wade ba mënuñu mujjee nekk candidat ci élection yi nga xam ne romb nañ ko muy euh, far nag ngeen ñu dugal ci dossier wu aji Sarr mu nekk dossier boo xam ne lu tàng la ci seeni loxo euh, moom nee na kenn mënu ko teree nekk candidat à une élection présidentielle ngeen dégg sortie bi nga xam ne mujje na ko def woowaat na gaa yi nee na dañuy xeex ak yéen dañuy wàcc ci mbedd mi lu mu leen jaral dina ko jaral lu weesu loolu euh, euh, ndax nga jàngate gën na bu mel xam nga waxi Ousmane Sonko moom ah presque mën naa wax ne jërëtu sa wax débat parce que Sénégal yëpp xam nañ lu nekk lan la xam nañ li mu bëgg lan la ok xam nga bi passé ak li passé bu bu bu basé woon ne loolu ma ñëwaat mu ngi nax boppam. Hmm. muy nax boppam li nga xam ne moo amoon ci bi passé problème la woon boo xam ne Sénégal ak monde entier la ñëpp la da yoon ndax ci wàllu corona bi la woon nit ñi toog doo toog lu yàgg maanaam mënuñu dem mënuñu dikk te état tegul leen ko àddina ak yàlla moo ko teg ci kooku ne mu dal Sénégal dal beneen réew dal beneen réew dal monde entier bu buggee jàpp ne loolu mooy répétuwaat tax muy woote waat comme ni mu ko woote woon même moom bu nekkoon ne loolu am na doole bi sax wuru koo def ndax bi mu ko defee fukki nit ak lu topp ñoo dee bon ma yaakaar ne xanaa nag ñooñu dee ay sénégalais lañu te dëkk bi am na loi am na yoon Ousmane Sonko dafa nekk nit boo xam ne dama yaakaar ne moom wutul réew dafa am leen lu ko tax a jóg dama yaakaar ne yàq réew daal bokk na ci li lim gën a jege ci defar réew wala bugg réew parce que réew soo ko mm. buggee mm. doone jóglee ñuy dem yàq ko jóglee ñu dem tasaare réew mi jóglee ñu dem yàq ngir lan yow yaa am sa problème bopp personnel yoonu kenn nekku ci et kenn porte wu la plainte du état wu Sénégal citoyen sénégalais comme yow moo dem porte la plainte ne yaa ma def lii waaye su la yoonu ooyee dama la uy ji fee état def état nekk sa gannaawam état lii état la non non non état defu ko dara ba mu fay dem état yóbbuwu ko te moom nangu na ne dem na fa la ko fa jot moom ñoom ñaar ko xam man fekk ma ko wala waalam lañ ko taxal muy dëgg muy fen ñoom ñaar ko xam ne dem uji l'état ne dem uji justice bi nga xam ne fi la ko président Macky Sall fekk fi la koy bàyyi dem hmm. justice boobu nañ ko gëm suñu mu réew lañ justice boobu ñu maandu lañ justice boobu mooy justice bi nga xam ne bañ juddoo ba léegi fi lañ ko fekk muy doxal suñu réew ci jàmm ak salaam muy ñuy doxal suñu réew ci yoon yoon woowu la président Macky Sall fekk fi la koy bàyyi dem bon na na na na tëj làmmiñam ci yee fitna ci réew na tëj làmmiñam te xam ne état bi du d'accord loolu parce que état bi dañ ko jox ay matukaay doy xamal ko ne ko nañu sàmmal suñu réew duñ nangu nag benn nit bu jóg pour yàqal ñu suñu réew moomu duñ ko nangu su amee problème nee na rek la ji problème am. mais problème te bàyyi état bi état nekk élection présidentielle bi génn moom jël ko deuxième ci réew mi. màgg na ci diggante bi de. ma ne élection présidentielle bi ñu génnee ma ne moom génn si deuxième tour. mais màgg na ci diggante bi. attends attends màgg ci diggante bi la nattukaay la ñu am nattukaay la am nattukaay bi mu jëm nattu ci moom mooy bi élection présidentielle moom du deuxième. est-ce que nekkoon na euh, troisième. mais législative yi à part benn bokk yaakaar législative yi ñoom groupe ñoo àndoon dem. à benn bokk yaakaar amut parti am benn bokk yaakaar parti am wu ko député coalition moo demoon autant coalition moo demoon. mais ci biir coalition boobu man sax gërëm naa ñi mu àndatoon loolu yëpp c'est faux li am daal mooy groupe ñoo àndoon dem wuuti ko la leen may état wóccee leen ko nangul leen ko encore une fois waaye li ma gën a neex nag tey. Hmm. mooy gis naa ne ñëpp déet yëpp reculé nañ ci kenn ku wax hmm. déggatoo ci kenn ku wax man déggatuma benn ci ñoom koo xam ne koo xam ne yow askan wi sa sa làmmiñ du Barthélémy Dias du Khalifa Sall du euh, du comment dirais-je euh, Déthié Fall dootul kenn déggatuma kenn koo xam ne sa xel jóg na daj na nga jóg di défendre Sonko parce que xam nga ci lim nekk dëgg xam nga lim nekk moo tooñ xam na moom lim def xam na fi mu jëm xam na xam na li nga xam ne moom la ko moom moom la ko yoon di war a teg yëpp xamal ko boppam <coughs> te ñoom xam nañ ko ñoom seen bopp xam nañ ko moo tax léegi téene seen bopp ñoom parce que xam nañ na waa jii defu politique waa jii dafa bëgg a jël Sénégal yi raxasee ko ab tilim tilimam Sénégal duñ ko nangu. déedéet waay Sénégal duñ ko nangu. Sénégal duñ ko nangu luwaa ko ko moom kenn moom ko bu la luwaa ooyee dama uyu ji. soo defee nga ne defuma indi preuve ki indi preuve ma ne kay atte ay Sénégal lañ te ay jullit lañu ay doomu aadama yu baax lañ ay ay nit ngën a lañ waaye jàppul toll ni justice di leen attaqué di leen xas organ bu nekk ci réew mi muy organe yi nga xam ne ñoo ngànk Sénégal jël leen di leen démystifier di leen wax wax ñaaw yoo xam ne àddina bi yëpp toog di ko dégg di ko xeebee Sénégal dama ne Sonko ni muy defee jaaduwul te du yoon te du dëkk te warul loolu sa gis-gis la ci <laughs> ci mbir mi mm. euh, bi ci topp mooy accident yi bari na lool ci dëkk bi temps yi mm, mm. ñenn ci yéen nee nañu tëggum bool yi ñoo ko waral ban jàngat nga ci am waaw xam nga en tout cas bu baaxut mën a jur lu ne mm-hmm. tëggam bool ñun suñ mag ñi booy booy tëgg bool ci kër sa ñu tere la ko mm-hmm. lu tax am na signal am na signe am na ci yoo xam ne duma ko mën a wax ci émission waaye man am na lu ma ci xam personnellement. Hmm. oui waaye nag du ma ko wax ci tëggam moomu du ko wax ci ci euh, ci ci rajo wala journal. non waaye nag sañ naa wax ne bokkul ci li ma tàmm bokkul ci li ma bëgg du ma bëgguma ku ko def suma kër bëgguma ko def suma dëkk te yàlla de euh, defal nañu jàmm kenn defu ko suma kër it kenn defu ko euh, suma dëkk it te bëgguma kenn ku ko def foofu encore une fois parce que du ngëneel te lu baax ok amaa nag. Euh, comment dirais yi moom ñu ngi jaale képp ku ca am ku génn àddina maa ngi félicité transporteurs yi nga xam ne bokkuñ ci gerew bii ndax ñoom dund nañ ne am na benn doomu Sénégal bu dee koo xam ne ku ku nekkoon sa kër ci ñun am naa yaakaar sa xel dana tal leneen lu nekk ci ay gerew mm. état nag bi ñu ko joxee doole jox ko lépp ne ko kaay nga diriger ñu kaay nga jàppale ñu kaay nga yiir ñu kaay nga aar ñu état boobu foog mu jël mesure ci lu toll nii li am soo bokkee ci réew la état jël mesure nga xam ne pour sauver nit ñi sauver bakkani yi sauver askan yi sauver la suñu bopp sauver réew mi am na yaakaar ne bu ca euh, euh, euh, suñ ko tegee ci waxtaan rek geraw bu ci am mhm. foog état jël mesure nag ci loolu mhm. soixante quarante quelques personnes benn bés ay oto rek est-ce que état moo yéex que état war na toog di xaar ba jéeyo am ba musiba am xam nga état dafay dox parce que surcharge yàgg naa jël mesure état yàgg na jël mesure yàgg na jël mesure ci lépp ak ak nekk ak ci lii sax mais wala transport bi waaye nag mesure maanaam tey moo lay jàngal suba su situation taxawee ba situation taxaw état sañ na nag ne maanaam un bi ma tegoon fii kat naa ko def deux ndax mu gën a moytu lii ndax moytu lii nga xam ne tey moo arrivé tey un laa fa defoon bu naa fa ndax mu gën a ndax mu gën a ndax mu jeexal dootul am hmm. loolu la état def bon nañ ànd état bi ci yi nga xam ne moom la jël nga xam ne ëllëg day nekk kaaraange pour chauffeur bi kaaraange pour transporteur bi kaaraange ngir borom oto bi kaaraange ngir nit kii dugg ci oto bi ba loolu ñëpp war a salier loolu président jël ci bon kenn war a caa def gerew amaa nag accident yooyu du kii moo leen rey du sàmm moo leen rey du demba moo leen rey kenn ay mbool daan oto loolu te faux amul hmm. da nga affaire coopérative yooyu taxawul loolu amul c'est faux li am mooy buñ demee ci diina yàlla mooy xaadru kulli yi bu xudrati yi mooy dogal lépp lu ko neex ci dooleem mhm. ah amul benn nit koo xam ne sa bés jot ko doo dem mhm. di mën ko dépassé euh, quelques secondes ah, quelques secondes mënta nekk bon an kulama waqa aw yaqon al insaan min umuri la biradatihi wa taqdirihi li saalika seen xam le waqon yi bon yi rek mooy doxal amoon nañ fi lu gën a bon loolu parce que le Joola ah, yéen bu mu fa xewaat junni nit xëy dee ci biir géej gi ah loolu amoon na fi xool ok junni nit ya dee woon ñun 40 rek moom lañ a am te yéen bu mu amaat. bu mu amaat parce que bëgguñu ko. waaye nag néanmoins président de la République wax dëgg yàlla mesures yi nga xam ne jël na ko nañ ko jàppale accompagner ko ci mesures yooyu ndax loolu moo ñuy sauver mooy sauver Sénégal mooy sauver transport bi mooy sauver nit ñi mooy sauver réew amul na kenn koo xam ne sa influence bokk na ci loolu maanaam kuy jaan kuy maanaam kuy jël tëggam bool di ko transféré naan aloo que moo tax accident bi am te accident bi ay doomu Sénégal dégg te yow nga nga bëgg doomu Sénégal fale est nit nga est-ce que yow nit nga <laughs> est-ce nga nekk ci réew mi nekk di nga ne doomu réew mi nga ah. nga ne patriote nga yow bu baax gis signal boo xam ne baaxul nga di ko def ci réew te nga xam ne lii dafay lor doomu réew mi te nga ne yow doomu réew mi ñoo la bëgg nga ne yow réew mi nga bëgg nga ne doomi réew mi nga bëgg ñu fal la mm. waaw mm. waaw bu nekk signal boobu yow da ci jublu lu mel noonu ba nit ñi di ko wax it mosu bi lamin sarr ji mm. laa xawla wala quwwata illa billahi al-azim en tout cas ñu ngi ñaanal yàlla ñu génn àddina yàlla yërëm leen euh, te bu mu d' accord léegi ñuy dem euh, élection présidentielle euh, ci biir Benno Bokk Yaakaar gis nañu ba tey am na parti yoo xam ne commencé nañu wone seen bopp signal la boo xam ne dafay wane ne Benno jeex na wala lu jaadu la ci processus électoral. yooyu ñan la. parti socialiste par exemple Wilane waxoon na ko même si euh, mel na ni ko delluwaat ci ginnaaw. ñi laan bi mu ko waxee même jour bi laa ko tontu Wilane amul dara benn du muy mën a jox président daal euh, benn signal. Wilane ak parti socialiste benn. Hmm. parti socialiste parti socialiste la. Wilane Wilane la. Wilane moom xamal na boppam ne Kaffrine gëm dëkk. Kaffrine gëm dëkk. su nekkee na ay waam dong la mëntu am benn conseil benn conseil benn conseil mënu ko am foofu bu fay nekk maire grâce président moo tax bu fay nekk maire grâce coalition moo tax moom nag xam loolu te nangu loolu. Hmm. waaye nag dégg naa certifié na wax dëgg yàlla dégg naa ko ba ni nga ko nangul parce que nee na dombul doon def politicien rek <laughs> ban kooku nañ ko nañ ko nangul loolu daal. d'accord waaye nag en tout cas amul kenn koo xam ne ci benn bokk yaakaar nga bokk. te delloo njukkal président sa xel dañ ngay tuddaal leneen lu dul ànd moom ci lu mu bëgg lu ne. Mm. ndax lépp lu am ci réew mi tey ñoo moom a ko bokk def ñoom moom ñoo ànd def loolu buy lu baax la ñoo ko ànd def gërëm nañ ci buy leneen li it ñoo ko ànd bokk def. Mm. bon ragal naa ne yoon wi président war a jëm pour mu ci de Sénégal ñoom dañ cee war a ànd yoonu président war a jël ëllëg nawu Sénégal ñoom dañ ñoom dañ cee bokk. Mm-hmm. muy AFP. muy PS muy benn bokk yaakaar bi yëpp kenn ku ci nekk li nga am ci parti bi sax. APR amuñ ko ci parti bi doomu APR amuñ dara ci APR doomu APR amuñ dara ci parti bi parti bi coalition yi ñoo ñi nga xam ne ñoo gën a ñoo gën a am li gën a bëri ci parti bi ba ñoo ñi li leen war a moo ñu muut noppi ana président de la delloo ko njukkal delloo ko ngor delloo ko tranga delloo ko sutura si leen delloo te ñu ormaan ko te ñu sagal ko te ñu sagoo ko te ñu ànd ak moom jox ko ay bëtam jox ko seen i bët jox ko seen i xol jox ko seen lépp parce que loolu mooy li nga xam ne moo leen war ñoom Benno Bokk Yaakaar ci par rapport teranga bi nga xam ne président de la jox na leen ko te desul leen dara. d'accord lan ngay tëjee. li may tëjee mooy di wax Sénégal yi ne leen am na yenn opposants yoo xam ne jëriñu déglu ci réew dafa am ñoo xam ne du ñu ay opposants yàq réew moo leen tax a jog koo xam ne yàq réew moo ko tax a bu leen ko déglu ku mel ne ay Ousmane Sonko façon soor nit ñi ñooñu duñ daa ñooñu ñooñu nit waroon na déglu sax te leen seen doom yi xale yi am leen fulla am fayda bu leen kenn sacrifié yàq seen addina yàq leen seen réew dem ngir intérêt boppam bu leen ko nangu bu leen ko nangu xool leen Sénégal fu ko président Macky Sall jëlee xool Sénégal fu ko président Macky Sall indi lan moo yokkul ci réew mi dégg naa ci tiré Yérim sekk bi bi ñuy wax dégg naa wax na ci yoo xam ne yoo am solo la nee na Ousmane Sonko lii ngay taxal président yoonam nekku ci yoonu état wu Sénégal nekku donc sa margara xas na président sax donc sa attaqué na président waaye euh, wax na loolu Ousmane Sonko xamal na ko ne ko li ngay état bi ngay taqale lii état bi bokkuñ ci seen yoon neexut ci donc ok bi loolu passé Yérim Seck dégg ngeen li mu wax barki démb ci gouvernement wu Abdoulaye Wade bi fi nekkoon a gouvernement Macky Sall bi fi nekkoon. Mhm. Macky Sall euh, président Macky euh, kenn du wax ne président Macky Sall dafa tële nañ seet arrage président Macky Sall kan mooy président Macky Sall ñu ne président Macky Sall ñu ne mooy maire ba ñu ne mooy directeur ba ñu ne mooy ministre ba. ñu nommé premier ministre ba ñu nommé président assemblée nationale ba ñu nommé président de la république Sénégal kooku xam nga ne asona yooyu mu jàll ba xëy ak si président de la république xam ngeen ne la koy may rek mooy xam-xam compétence capacité expérience yàlla defal na ko ko nañ téye suñu président jàppale suñu réew aar ko yiir ko ndax Sénégal li ci dollee ko ci diggante bi Yérim wax na ko barki démb Yérim nee na Ablaye Wade mu ngi fi bowoon ñaata classe ci école da na trente six mille et quelque nee na président Ablaye loolu fi bawoon nee na président Macky Sall def na ko muy quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-dix mille xool leen li nga xam ne réalisation yi nga xam ne président def na ko rek benn réalisation bi nga xam ne gént lay nekk sax biir Sénégal yi mooy xoolee Ila Touba gii rek xoolal fu ne ni boo toppee autoroute bi parce que léegi ak na Kaolack xoolal terre bi xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal ah xoolal bourse familiale xoolal xoolal amul benn dëkk bu amul ye amul amul benn dëkk amul benn commune boo xam ne Sénégal yaa nga fa amoo ay cinq yu bees yoo xam ne ñu ngi taxaw li lépp nit bu koy def ci dëkk bu koy def ci réew ma ne ñu am fulla am fayda même bu amutoon droit sax def euh, comment dirais je euh, nekk candidat 2024 ñun Sénégal nañ ko xëcc mu ñëw nekkal ñu ko ndax ñun contre ñu président intéressé wuñu ñun li ñu intéressé mooy loo xam ne dafay defar Sénégal dafay defar suñu réew ñun kooku moo ñu intéressé waaye dañuy contre ay président amuñ ci soxla président yoo xam ne boo ñu ñu leer na ma leer yàlla ne Abdou Diouf Ablaye Wade ñoom ñaar boo leen boolee seen réalisation ci Sénégal li Macky Sall def moo ëpp lu ñoom ñaar ñëpp tout. <laughs> merci beaucoup. bon président Macky Sall gàcce ngalaama ci sa gouvernement ak ni nga yore réew mi gàcce ngalaama ci li nga lëgël Sénégal yi gàcce ngalaama ci sa yar sa teggin sa teranga ak cër bi nga jox. Mm. Euh, xalifa général yi ci réew mi di gërëm xalifa général yi fi nekk ñëpp yàlla may leen jàmm di yàlla may leen salaam yàlla aar Sénégal yala boole Sénégal mi benn xol benn ndey benn baay. ñu ngi gërëm ñëpp di sant une fois encore Senego bu baax seen taxawaay bu ci population bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñi leen di jaajëfal ci taamu bi nga xam ne chaque jour dañu koy taamu Senego pour di fi taataan ay information di leen dig daje ba beneen yoon ak beneen invité fii ci senego point com jërë ngeen jëf